fi ñu toll contexte bii ma gis nii ak situation yi moom dañoo war a fexe ba réglage yi ñu war a def yi ñu war a régler daal dafa bari. mais réglage yooyu lan la. bari na bari na comme lan mais comme lan. waaw comme lan bi ci jiitu rek mooy xam nga ñi exécuté ñi bokk na ñi bokk ñi buñ bokk nangam te man doon naa doon naa rafetlu. article 28 bi nga xam ne dañ naan à partir de 35 ans ci ngay mën a doon ki xale yi xale yi pour satisfaire leen nañu leen nañu bàyyi benn xale mu doon candidat bu fekkee élection dina am même bu amee 30 ans baax na waaw parce que loolu dina am dina dina am nu mu def jeunesse bi waaw bu ñu nangoo benn jeune bokk ci élection yi waaw moo xam bu ñu même bu ñu dindiwul article bi itam mu nekk lu ñu mu nekk faveur bu ñu defal jeunesse bi pour ñu am seen candidat loolu may mën a. mais moo tax ngay am doute ne élection bi dina am. déedéet aw ma dut dama ne li ma bëgg man su ma señoon élection du am. ñu reporté ko. su ma sañoon dañ koy reporté. ñaata ñaata weer ñaata weer. ñaata at ñu reporté ñaar ñett. <laughs> ñu reporté ko ñaar ñett waaw pour régler yi ñu war a régler yëpp bu boobaa sax dinañ mën a trouver waale balaa booba li sëñ bi wax ci Touba. mais mais mais statut spécial bi. statut spécial bu Touba bi. Hmm. mais d'après yow euh, yan réglage lañu war a def. ah bu war a tax bu war a jar ñu reporter élection bi. waaw waaw xam nga léegi bon xam nga ñi ngi wax ci waaw nañ bàyyi ba xam nañ bàyyi ba xam euh, ñi ñuy wax naan dinañ bokk ak duñu bokk fu ñuy mujj. xam nga ñu ngi naan euh, Sonko mën naa am du bokk ñu ngi naan ma kii wóorul Khalifa nanga ma ki nanga. non ñoom le processus est lancé bu ñu wootee loi bi. bu ñu ko euh, wotewul nag non dinañ ko non ah bu ko wotewul loolu doon wor de <laughs> ah déet non non non ay nit lañu kañ ay ñu ah. fa nekk xel yi bokkuñu di du ku nekk ak sàkk d'accord am nañu ay kilifa waaye